ñetti fan yii ñu nekk fi taxaw léegi bi xam ne sëñ bi kat mooy borom bis moo woote. di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xamante ne moo fi nekk ci boppu njabootu Cheikh Ibra Faty ci kàddu Serigne Basiru moom Serigne Abdoul Khodos mi nga xam ne moo ko fi nekkal te yor kàddoom. Serigne bi nee na li ko tax di woote leen rek la mooy bis bii nga xamante ne mooy bisu soxna May Mondatu moom Serigne Touba nga xam ne eh, nee na mi ngi ciy woo njabootu borom daaru gépp ndax li tax mu ciy woo njabootu borom daaru gépp kenn ku ci nekk xam na ne péete dafa am. ay cër am na waaye lu ñu la féetale li da ca da ca rawati te soxna may Serigne Touba da ko féetale woon borom daaru looloo tax mu ciy woo njabootu borom daaru gépp bëgg fu waay nekk nga xam ne bis bi sa bisa du bisu sëñ Modou Mahfous du njabootu Serigne wax soxna may waaye bisu njabootu borom gépp njabootu Serigne Touba gépp moo tax kon sëriñ bi nee na dafa bëggoon lu ci waaye jàpp rek nga bàyyi ko te ñëw ànd ak ñoom bis bi ba mu jeex tàkk. tàmbalee nuyoo bi di kàdduy cant jëm ci sunuy kilifa di Cheikh Mouhamadoul Mountakha xafidahu llahu wa raahu moom mi nga xam ne moo fi nekk seexul Xadim ndax bis bii nu dëgbal bi fii soxna si nekkee daa baaxoo woon waxtu bis bi jubee mu jógal boppam dem ci ki fi nekkal Cheikhul Xadim wala bu tànkam diisee mu yebal ma ma dem ci ki fi nekkal Cheikhul Xadim ma amaat ci ndigal loolu la ñuy loolu mos di wéyee noonu it ko defee bi weer wi teroo ci bisub alxames bi laa dem ci Cheikh Mahamadou Muntaxa xamal ko ni ko ndigal leen baaxoo jël si ki fi nekkal sëñ Touba moom ma tax a jóg mu jox ma ci ndigal jox ma ci ñaan rafetlu ko fedd li ma ci bu baax ma jóge fi dem ci sunu wajur yaa Cheikh Mahamadul Bachir li fi nekkal borom Daaru Muxti laaj ko ndigal sàkku ci moom ak ñaan mooy mu jox ma aus billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmaani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa man tabiahum bi islaamin wa ixsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa cheikh Mahamadul Muntaqa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu fas yéene liggéeyal borom Tuubaa yëpp mu àggale ko nim ko bëggee ànd ko taaliba yépp waaye ñi ngi nuyu bu baax kilifa ëtt bi ñu nekk muy sëriñ Mahamadul Mahfouz moom sëriñ cheikh Awa Balla moom maam Thierno waaye sëriñ Mahamadul Mahfouz moom soxna May Munatu moom xaadimu rasul ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal moom itam sunu boroom kàttanal ko ba naa lii mu fas yéene liggéeyal Serigne Touba yëpp ci biir kër maam Thierno ak kër boroom Touba lépp mu àggale ko nim ko bëggee. ginnaaw loolu itam ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma di ko ziar bu baax di ko ñaanal moom itam di ci teg Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke moom sëriñ Mahamadul Mahfouz di ko ziar bu baax di nuyu daal njabootuk soxna May gépp di nuyu njabootuk borom Touba gépp kon ñu wéyal rek ci niñ ko baaxoo defee at mu nekk bu laylatul qadr gi jubee commité d'organisation bi nga xam ne moo yor moo yor laylatul qadr gi dañ ciy amal ay conférence bu laylatul qadr gi jubsee ñu ci tànn ay thèmes yu am solo yu ci ànd ak ay borom xam-xam yu mag ñu di ko waxtaane ba keroog ñuy àgg ci laylatul qadri tey jii nag mooy bis njëkk ci bi ubbi conférence yooyu nga xam ne dañ koy def at mu ne tey jii di 5 avril mercredi 5 avril 2023 ñu nekk fii tam ci HLM ci kër Soxna May Munatu gi nekk fii ci Touba HLM tey nag ñu war a amal waxtaan ci thème bu am solo di ci ànd ak itam boroom xam-xam bu mag boo xam ne ñëpp xam nañ xam-xamam ñëpp ràññee nañ taxawaayam ci yoonu murit ci wàllu gëstu ak tasaare xam-xam ak tasaare njàngaleem Serigne tubaa sa ki ñu ciy àndal nag mooy Serigne Abdul Quddus Mbacke ibnu Serigne Bachiru Anta Ñang moom maam Cerno moo ñu war a defal tey waxtaan wi sëriñ Abdul Quddus Mbàkke nag nekk gëstukat nekk itam jàngalekat buy jàngale diine ak di tasaare njàngaleem sëriñ Touba moom nag mi ngi génnee rekk ci tënk benn université bu nekk Maroc ci dëkk bu ñu naan Fès wala Fas nekkoon ci faculté islamique muy kulliyatu sharia yàlla def nag mu xóot lool ci wàllu xam-xam loolu waral ñu tànn ko ngir mu amal mu def waxtaan wi thème bi nag tey mi ngi jëm ci solos waxtu solos temps l'importance du temps maanaam njariñ li temps am ci lislaam waaye njariñ li temps am itam ci njàngaleem Serigne Touba maanaam nu ko Serigne bi fonke woon kon tey loolu moo nekk thème bi nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak Serigne bi mu defal ñu ko ñu fas yéene koo taataan kon ñu ngi ñaan mbokk yëpp ñu teewlu ko bu baax a baax ñu ngi jox kàddu gi kon sëriñ bi ngir mu daal di dugg ak ñun ci biir waxtaan wi incha allah bismillah sëriñ. teg alhamdulillahi rabbil aalamiin wa afdalu salaati wa azka tasliim ala sayyidil mursaliin sayyidina wa nabiyina wa xabibina muhammad wa ala aalihi wa saxbihi wa asna qadimihi wa man ixtada bi hadiyihim ila yawmi ddiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel di leen siyaar di jiital ci nuyoo yi ak siyaar yi cheikh Mouhamadul Muntaqa xalifatu che xalifatu di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko tawfiq te mottali ay yéeneem ci liggéeyal lislaam ak cheikh cheikhul xadim di teg ci nuyoo ba cheikh Mouhamadul Bachir ak ci mboolem xalifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci yoonu murit yépp bàyyiwuñu kenn di jot li jaarale ci nuyoo bi nag ci loxol cheikh Mouhamadul Mahfouz mi nga xamante ne moo fi nekkal as-sayyidatul karima soxna Maymunatu Mbàkke di ko nuyu bu baax di jo di jaarale ci moom sunub nuyoo ngir mu jotal ko mboolem atti Sëriñ Tuubaa yëpp atti lislaam yëpp fu ñu mën a nekk ak mboolem ñiy bàyyi xel fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di ko ñaanal tawfiq ci liggéey bu màgg bii nga xamante ne soxna si tàmbali na ko liggéey ci ay at yu baree bari bàyyil ko ko fi mu nekk liggéey boo xamante ne ilaa yawmi diin dañ koy fas yéene di ko wéel liggéey bi nag weesuwut seet guddi gi gën a màgg ci at mi guddi gi gën a màgg ci lislaam mooy guddig laylatul qadr ñu di ko dundal fii ci këram gi nam ko daan dundale bi mu fi bi mu nekkee ci àdduna ak bim ñu fi bàyyee kon ñu ngi jottali sunum nuyoo mbooleem njabootuk soxna may gépp gi nga xamante ne ñoo ànd ak sëriñ Mahamadul Mahfous liggéey bi tàmbale ko ci sëriñ Abdul Ahad di ñaanal sunu mag ju baax ja soxna Bali ak mboolem ñi nga xamante ne soxna si jaboote nañ leen te te jóge fi ñëpp di nuyu jaarale ci sëriñ Modou Mahfous sunum nuyoo ci Cheikh Abdou moomu moom Serigne Cheikh Fatima Fatma moom Cheikh Mouhamadou Moustapha ak mboolem commission bi mu àndal ci liggéey taxawal du xadar ñu ngi leen nuy ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen ñu ngi nuyu soxna Assu Mbàkke moom soxna Baali ak njaboot gi yëpp fàttewuñu kenn. te ànd ak sëriñ bi nag liggéey bu mag bii nga xamante ne képp ku la ci woo daf laa bëgg a jàppale daf laa bëgg a dimbale loola nag lum jël ci sa waxtu lum lum néew néew ak lum bari bari mën nga ko jàppe ne ci jëf yi ñu gën a ëpp yaakaar ci ak nangu lay doon ndax mi ngi jëm ci waxtu yi nga xamante ne moo gën a màgg ci lislaam waxtu yi gën a yaakaar ci dundal ko ci lislaam te mooy guddik laylatul xadr nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi ba mu gisee dund yaa nga xamante ne ñi jiitu woon daanañ ko dund ndax dégg ngeen Seydina Noox ñu ne dund na junni at yu manqué juróom fukki at dégg ngeen euh, ñi ña jiitu woon daanañ dund ñi ay juróomi téeméeri at ñi ñetti téeméeri at ñii lu ko ëpp waaye bi ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel na sunu boroom dafa wàññi dunduk doomu adama li doomu aadama daan dund suñu boroom daf ko wàññi moo tax yonent bi di wax ne ahmaaru ummati ma bayna sittiina wa sabxiina wa xalla man yajuuzu salik mu ne sama sama xeet bi de seen dund li ci ëpp gën jaa bari juróom benn fukk ba juróom ñaar fukk ku ko ci am rek gudd ngaw fan waaye nag da leen a fulal yiw yi ndax al asharatu al al al xasanatu bi ashri amsaaliha man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaaliha loolu xeetu yonent bi sallallahu alayhi la ko yàlla defal benn yiw boo def ñu fulal la ko defal la ko fukk benn ñaawteef boo def ñu téye ko boo tuubut ñu bind bindal la benn loolu kon li dund gi gàtt-gàtt yiw yi mën na cee bari lool mu boole ca nag defal ñu ay waxtu waxtu yu ngëneel yoo xamante ne xeet ya ñu jiitu woon amuñu ko woon te loola bokk na ci waxtu yooyee mooy li ñu tuddee laylatul qadr te mooy guddi gi nga xamante ne genn guddi la waaye mën naa wecc ci euh, junni junni weer junniy weer nag boo ko xoolee juróom-ñett fukki at lay doon ak ñett ak lu tofal nga mën koo am ci genn guddi te loo ca def ci aw yiw dañ koy ful loola kon gàttu dundu xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom daf koo wattee yërmandeem ci loo xamante ne defal na ko yonent bi te defalu ko woon yonent yee jiitu woon kon mu mel na kon sunu borom dafa jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy wax euh, maanaam promotion daf ko daf ko daf ko defal euh, avantage ci waxtu yi lépp euh, benn waxtu nga mën caa am wala genn guddi nga mën caa am juróom-ñett fukki ak ñett ci ay at loolu yaakaar naa bénéfice mën mënta gën a rëy loolu te yonent bi sallallahu alayhi wa la ko yàlla defal kon loolu day wane importance waxtu ci xeetu yonante bi sallallahu alayhi ndax laylatu xadar ci waxtu yi gën a màgg la bokk guddi yi gën a màgg la bokk am ci yeneen waxtu it yoo xam ne suñu borom daf ko tànnal yonent bi sallallahu alayhi sallam may ko ko lu mel ni kiy waxtu fajar waxtu woowu lu ci wax nañ ne malayka yi dañuy wàcc ci kaw suuf di laaj ndax am na ku defoon bàkkaar ku bëgg a jégglu am na ku ku ku bëgg yàlla may ko am na ku bëgg a tuub am na ku bëgg lii am na ku bëgg lii ba bañuy nodd fajar te waxtu su gàtt la waaye mm, lu ci waay ñaan mu nangu lu ci waay eh, jaamu bu tasanteeg waxtu woo suñ boroom da koy nangu mu may nu it ci waxtu yi nga ne lii waxtu jullik àjjuma waxtu wi ilimaan di taxaw ca kaw min barba waxtu wa ñuy nodd waxtu wa ñuy xutba diggante soo sa ilimaan di toog foofa lu fa waay ñaan suñ boroom nangu ko loolu xeetu yonent bi sallallahu alayhi la ko yàlla may mu mayaat ñi it ci waxtu yi lu mel ni ki waxtu woo xamante ne yaa ngi dégg dégg ak nodd ci waxtu yi ñuy nangu ñaan la bokk waxtu wu ndox mi wàcc taw bi wàcc ci waxtu yi ñuy nangu ñaan la bokk waxtu wi ñuy taxawal julli ci waxtu nangu ñaan la bokk loolu li muy tegtale rek mooy am solo waxtu ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi sallam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa daana wax ne yàlla sunu boroom defal nañu ñaari xéwal ñaari xéwal yoo xamante ne lu ëpp ci xeet wi dañ ciy trompé wu wala dañ koy sàggane ba duñ ko exploité niñ ko war a exploité ñu ne ko yooya mooy lan ñaari xewal yooyu yu mag yooyu mooy yan yow yonent bi yàlla bi mu ne asixatu wal faraax mooy nit ki bu nekkee ci état wér-gi-yaram ak kattan ak digg dooleem ak nit ki bu amee temps bu yaatu temps bu yaatu muy faraax ñaari xewal yooyu mooy nga nekk ci forme bu bu bu bu baax nekk ci wér-gu-yaram am kàttan mën a def mën a bàyyi ak bi nga xamante ni am nga temps boo mën a defee te defoo ñaari xéwal yooyu yonent bi sallallahu alayhi daana wax ne ñu baree bari dañ ciy trompé wu ba mu raw leen te duñ ko jariñoo kon ni'mataani maxbuunun fiihima kasiru min an naas ñu ne ko ayyuhuma ya rasulallah mu ne as-sihhatu wal faraax kon ci loolu lañ bëgg bëgg waxtaane xéwal gu mag googu nga xam ne yàlla daf koo defal doomu aadama te am solo lool ci ak dundam te léppam ak texe ak àddunaam aju ci ak texe àllaaxiraam aju ci te loola mooy lan mooy temps nan la ko mën a jariñoo nan la ko mën a exploiter nan la ci mën a investir ba dundal ci àddunaam li tax yàlla def ko muy xalifatullaahi fil ard man cee taxe yit ëllëg ndax bu ëllëgee sun boroom wax nañ ne ñi ñi génn àdduna li ñuy gën a njëkk njëkk a rëccu li ñuy njëkk njëkk rëccu mooy mooy temps biñ amoon te amatu amatuñ ko xatta ida jaa ahadahumul mawtu qaala rabbir jaoon ñi génn àdduna li ñuy njëkk a rëccu mooy sun boroom ak a neexoon nga delloo si ñu laali ahmalu saalihan fi ma taraktu waaye nag sun borom ne na foofu rëccu temps bi nga xamante ne ñàkk nga ko muy dund gi nga ñàkk mënatoo ko am waxambaane gi nga ñàkk wér gi nga ñàkk cawarte gi nga ñàkk mënatoo ko am moo tax sëriñ tubaa di wax ne wa argabul asyaai lil amwaati raddun raddun ila dunya mahal xayaati sëriñ bi nee na ñi fi bàyyi ko li nga xamante ne moo moom lañ siiwee moom lañ yàq yanki woo moo leen moom dong moom fañ nekk loola dong lañ fay ñaan suñu borom buñ ko mënoon am mooy dellusiwaat fii ci àdduna donte benn benn benn seconde la wala benn minit la bu ñu wax laa ilaha illallah wala ñu wax allahuma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wala ñu def ca aw yiw wala ñu jokk ci ak bokk wala ñu def ci lu baax loo xamante ne ëllëg danañ ko mën a am ci seen balance yooyee euh, ëllëg te loola duutu mënati am kon nit ki nga xamante ne moom faatoogut mi ngi dund am nag wér am na temps sëriñ bi kon nee na na exploité temps boobu temps it liy wane am amam solo muy waxtu ak dunduk doomu aadama bokk na ci li ñuy njëkk a laaj jaam bi xéwal gi suñu boroom di njëkk a laaj jaam bi ëllëg bu taxawee yowmal xiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lan tazuula xadama abdin yowmal xiyaama xatta yusal an arbaa an umrihi fii afnaa wa an maalihi fii ma anfaqa wa an ilmihi maata amila bi loolu yonent bi nee na moom la njëkk a laaj ab jaam bu bis penc ba taxawee mooy sa temps bi anan anan lan lan lan nga ci doon def sa dund gi anan lan nga ko paase ak lan nga ci def kon loolu muy wone am solo am am solo ba tax na nit ku nekk war na ko exploiter ana nan lañ koy exploiter nag loolu moom lañ bëgg a waxtaane niñ koy exploiter Sëriñ Tuubaa ci boppam dafa jàngale importance su temps bind ci ay mbind yu baree baree bare soññee ci it soññee yu baree bare tër programme yit boo xamante ne ci la murit war a jaar pour mën a réussir pour mën a exploiter pour mën a gagner temps moo tax bu ñu wax temps dëgg dëgg dëgg ki ko war a mën a jariñoo dëgg dëgg te jaarale ko ci yoon woom ko gën a mën a jariñoo mooy ab jullit waaye jullit boobee bokk na ci ki ci am maanaam privilège ci jariñoo ko ci ci plan buñ ko tëral ak programme mooy ab murit moo tax sëriñ bi di wax ne fa saadiqul muridi man yanqalibu bi xukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waqtan li anna daaka yamnaw min islaahi ma hunaaka sëriñ bi nee na murit dëgg-dëgg murit saadiq mooy ki nga xamante ne day xam nu muy jariñoo waxtoom te du bokk ci ñi nga xamante ne dañuy wax danaa def nangam danaa def nangam di waaj rek di waaj rek ba dee ñëw te duñ def dara moo tax kon murid dëgg-dëgg day nekk koo xamante ne day xam nu muy jariñoo taam nu muy jariñoo ak dundam loolu mooy ak murid programme boobu nag la sëriñ bi tër ci nan la ñuy jariñoo waxtu sëriñ bi dafa wax ne waxtu bul ko neenal yow mi nga xam ne da am xel laa tuhmilil awqaata yaasal aqli fi baatilin waxmal bi ma fi naqli nee na bul yàq sawi waxtu ci lu amul njariñ ci programme bu amul benn résultat ci ay laraxit ci loo xamante ne du la jariñ fii ci àdduna du la jariñ fële ci àllaaxira ndax sëriñ bi nee na waalam bi anna waqtal mar'i min az ashyaihi fa asxilanhu bil az nee na temps temps dundug doomu aadama bokk na ci li gën a tedd li gën a seer ci ci lu lu yàlla may nit kon yow it na nga fexe ba nanga ko jënd li gën a seer te loolu mooy lan mooy ngërëmal yàlla ak jaamu yàlla moo tax mu ne fal aaqilu alladi naxaa daaral xaraar mujtahidan fii kulli laylin wa nahaar nee na kon ki am xel dëgg-dëgg ki intelligent mooy ki nga xamante ne dafa jël àdduna mu jaay ko jënde ko alaaxira ci taam ay guddeem ay bëccëgam ndax lenn lu ci nekk dafa am loo ci war a def loo xamante ne boo ko boo ko salfaañee Euh, résultat ba nga war a am doo ko am moo tax Seydina Aboubacarin Saddiq mas naa wax Seydina Omar ne ko bi mu koy dénk xilaafa gi nekk suñ borom inna lillahi amalan binnahaar la yaqbaluhu billayl wa amalan maanaam mbir mu ne ak jaamu yàlla gu nekk dafa am temps buñ ko war a def amoo sañ-sañub li nga war a def ci guddi gi nga def ko ci bëccëg gi waaye amoo sañ-sañu biit li nga war a def ci bëccëg gi nga di ko def ci guddi gi moo tax am na benn waay bu ma sa ñëw ci Seydina Omar fekk ko digg njolloor mu mel na Seydina Omar dafa nekk ci biir mu toog ab diir xaar ko bi mu toogee ab diir xaar ko Seydina Omar génn mu nuyu ko ba noppi ne ko yaa amiral muminin damaa defe ne woon dangay ngay dal Seydina Omar ne ko bi sama zanante bi yow de sa sa njort ci man ñaaw na lool bu fekkee da ngaa defe ne woon damay dallu ndax ñaar rek moo mën a am su ma dalloo ci bëccëg gi responsabilité yiñ ma yan ci sama digg ak nation bi sama digg ak nit ñi danaa ko sànk te kon bu ëllëgee suñ boroom dana ma ko laaj waaye su ma nelawee ci guddi gi it dallu ci guddi gi nelaw ba guddi gi ba bët set danaa sànk sama bopp ndax li ma war ci sama digg sama boroom ci tuub ci taxaw lu néew néew ñaari rakkaat ci guddi gi wala nu mu toll ni ko ni ko góor yàlla yi defe bu ma ko defut danaa sànk sama bopp ëllëg kon damay perte àdduna perte àllaaxira responsabilité bi ñu ma jox sama digg ak jullit ñi ci bëccëg gi danaa ko sànq responsabilité bi ma war it sama digg ak sama boroom ci tuub wal mustaxfirina bil asxaar loola it kon duma ko am kon noonu la ab jullit war a taxaw ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari eh, taxawaay yooyu mooy fexe ba responsabilité yi mu am diggam ak xeet wi mu matale ko waaye responsabilité yi mu am it diggam ak sun boroom mu matale ko dafa am benn professeur boo xamante ne dafa mas a ñëw taxaw ci ay ay ay ay ay ay étudiant maanaam ñi muy jàngal ne leen laaj leen benn question ne leen ndax bu ngeen yoroon quatre-vingt-six mille quatre cent dollars bi ngeen di génn am koo xamante ne def leen a sàcc walla mu mu tafu leen dix dollars bàyyi leen quatre-vingt-six mille yu tegal nu ngeen di def ndax dangeen koy topp di ko wër di wëreelu di jaaxle lu na ngeen dugg ca ba jotaat seen diis dollars yi wala da ngeen di jël seen quatre-vingt-six mille et quelque dem fexe ba sàmm ko jariñoo ko nu ngeen di def étudiants yi xalaat ba yàgg ñu ne ko ah kon bu boobaa dañuy jël suñu quatre-vingt-six mille trois cent nangam bàyyeeku dix dollars yooyu mu ne leen kon noonu la mel temps ci ab jullit xam nga jour bi yëpp boo xoolee quatre-vingt-six mille trois cent secondes la jour bi vingt-quatre heures yi nit yàqal la ci luy tolloog dix secondes wala mu wax la ci baat bu ñaaw luy tolloog dix secondes wala lu loo xamante ne ci loolu à peu lay war a doon ci kàddu gu ñaaw wala wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw wala mu yàqal la wala wala mu def la nga jël nag li des ci journée bi yépp pour venger pour fayantoo pour waxante wax ju ñaaw ba perte sa journée yépp maanaam sa bi yépp jënde nga ko di di dix secondes quatre-vingt-six six mille trois cent euh, secondes perte nga ko yépp loolu ñun buñ xoolee loolu sama mbokki politiciens yi war nañ ci jële leçon bu mag ndax dangay topp léeg benn kàddu walla benn wax ba daanaka mën naa ne li ñu war a def ci adam bi yépp dañ koy perte walla li ñu war a def ci euh, weer bi yépp ci lu ñàkk solo loo xamante ne dañu jural ay pertement yu baree baree bare bare loolu kon principe bu du loolu principe bu mooy ab julit day nekk koo xamante ne ku ku ku ku ku ku ku ku maanaam nit ku nit koo xamante ne day day jëlale day seet lépp importance mu nekk ca bàyyi li koy tardeel ak li nga xamante ne mën na ko gàllankoor maam ci ak dundam kon danañ faral di jeexal sunu temps ci loo xamante ne jëru ko ci ñun wala pertement lay doon ci ñun sunu àdduna pertement lay doon it sunu àllaaxira kon looloo tax sëriñ bi di soññee ci fonk waxtu sëriñ bi nag dafa am programme ni ko lislaam amee ndax mën naa ne murit bi moom continuer rek la ci jullit bi nu mu war a doxe nu mu war a euh, jëfe te gis ngeen lislaam dafa fonk waxtu jullit moo tax dafa jël programme jullit bi moo tax suñ boroom giñ na fu baree bari te am solo waxtu wa saxara lakumu layla nahaar daay bayin wax huwa alladi jaxala layla wa nahaara xilfatan liman araada an yezakkara aw aw araada shukura loolu lépp day wax am solo gum am solo moom waxtu moo tax ñi jiitu woon ci gaa yu baax yépp dañoo fonkoon waxtu daan ko dundal daan ko organiser bokk na ci li nga xamante ne moo ñu gën a tënk ci ñu mën a gën a mën a nag ñu ñu ñu fonk waxtu mooy jaam yàlla yi jaam yàlla yépp booy xool ci temps la tegu julli ci temps la tegu koor ci temps la tegu aj makk ci temps la tegu moo tax suñ borom mi wax ne yasalunaka anil la àdduna bi ngay gis weer wi léeg-léeg mu dem di dem ba ba ba màggat mu dee génnaat doon weer wu ndaw nga gisaat ko muy màgg di màgg ba dee mu jaaxaloon loolu yëfër yi loolu ana lan lan lay yes la wuntu yasalunaka anil ahilla suñ boroom daal ne qul hiya mawaqitu linnaasi wal hajj kon taala taala boo xamante ne sun sun boroom lu mu ci jublu daf caa def ay jaamu lu mel ne aj def ci ay julli def ci ay koor def ci jigéen joo xamante ne dafa dafa dafa gis dafa ñàkk set mu war a xam temps ba mu war a am pour set koo xam dafa wàcc soxnaam temps ba mu war a am pour keneen mën koo takk yooyu yëpp ci waxtu lañ koy xamee te bu fekkente ne organiser wuñ waxtu loolu day jaxasoo askan yi day jaxasoo askan yi day jaxasoo ndax ku wàcc jigéen doo xam ba xam jigéen ji set na wala setut keneen takk ko mën naa fekk mu kooka bàyyi woon te dara askan yi day jaxasoo te loolu waxtu moo ñu koy ràññaleel waxtu it moo ñuy ràññaleel ñu mën a xam buñ wooree waxtu wuñ war a jàpp ak waxtu wuñ war a dog pour suñ koor baax il faut ñu organiser waxtu moo tax gis ngeen mag ñu baax ñi liggéey na nañ ci liggéey yu rëy ku mel ne ku mel ne alxaaji Mbàkke Buso radwaanullah alayhi gis ngeen liggéey bu rëy bi mu liggéey ci defar ci sàmm waxtu def ko ay ati at yoo xamante ne wax nañ ne daana ay doomam sax daana leen yégloo ba ca kaw ñuy xool jant bi di ko di ko fuglu di ko fuglu di fuglu jant bi moom wóor na leen a jant bi sona ñu door a wàcc ci kaw garab ca mooy yooyu nga xam ne temps boobu mooy yooyu lañ amoon pour mën a xam jant bi sona mu bind di ko def di ko def ba at mi mbat nga xamante ne bis bu nekk dana xam bis ba jant bi eh, so ak waxtu wa jant bay so ak waxtu wa jant bi fenk mu door ko nag def ab téere boo xamante ne ñu ngi ko tuddee al mu tawxiit nga xam ci lañu xamee waxtu julli yi tisbaar montre yooyu ngeen gis nga xam ne ci keruk jant bi la lañ koy kiyee nga xam mook montre tubaab yi waaye fii ni boo xoolee moo gën a wóor montari tubaab yi ndax waxtu tisbaar day soppiku léeg-léeg dana àgg dana àgg une heure une demi jëm kaw waaye léeg-léeg mën naa doon une heure net waxtu wi day soppeeku te loola ñoom mag ñi góor góorlu nañ def seen impor seen seen i majhudaat seen effort ba fexe ba organiser temps ba xam temps bi cent pour cent ci loo xamante ne eh, danañ ci mën a sukkandiku ci seen i jaamu yàlla loolu mu bokk ci liggéeyu sëriñ bi ci waxtu ak liggéeyu waa kër sëriñ bi sëriñ bi ci boppam bu dee waxtu am gum am solo mën naa ne mës ñoo gis ci histoire ku ku ku exploité waxtu jariñoo waxtu amal solo waxtu ni ko cheikhul xadim cheikhuna ahmadul xadim qaadallaahu lahu maxtaara la maxtaara lahu fi daarayn amin ku am ku am organisation ku mën a dundal waxtu ku mën a euh, programme waxtu noonu histoire nettaleguñu ko la ma cay tegtaloo mooy moom sëriñ bi ci boppam gis nañ ne weeru koor wii bindilu na kaamilu alxuraan ci ñetti fan weer wi dem na ba mu ba mu am am ñaar fukki fan ak juróom benn des ñetti fan ak alxuraan nga xamante ne 114 suura la ak ni mu baree ak ni mu sakkane moom sëriñ bi mu bind lu ko ci ñetti fan ñetti fan bind lu na ko ci nga xamante ne ña ko doon bind kii day tàmbalee ci isbu bi yem fii kee tàmbalee ci xisbu yam ne ko sëñ Mad Lamin Jóob ak Dagana nettale ci Irwa un Nadim kon gis nañ ne dundal temps ak fonk temps foofu la mën a yem ci histoire mosuñoo dégg ku alxuraanul karim ku ko bind ci ñetti fan ku sëriñ Touba lu ko jiitu lu jiitu sëriñ bi mosuñu ko dégg loola sax la leen ca wax ba mu leen ko defloo ba noppi waaye sëriñ bi boppam dundal gum daan dundal waxtu ak fonk gum fonkoon waxtu mën nañ ne sëriñ bi guddeem ak bëccam ñooyam bu guddee ñee ña ngay ña ngay def ay ay ay zikkar ñii ñu ngi jàng xaside yi ñii ñu ngay dugg ak a génn comme ni ko suñ mën laa mi nettalee daanaka ba fajar jot loolu lañuy fanaane guddi gi yëpp da koy dundal ci joxe ay ñam jàng alxuraanul karim euh, waar nit ñi delloo leen ci yàlla ak di diglu seeni soxla guddi gi yëpp daanaka ci loolu lay nekk bëccëg gi it organiser na ko organiser goo xam ne moom sëriñ bi alxuraanul karim diirub li sëriñ bi nekk tàmbalee ko ca ba muy ba mu nekkee gànnaar ba ñëw cëyeen ba ñëw njaareem fu mu mas a nekk moom sëriñ bi temps bi ni mu ko daan euh, répartir ñi nekkoon ak moom ñëpp kenn ku nekk am na loo xamante ne moom ngay def kenn du toog ak loxoy nan ndax moom moo ko waxal boppam fa fadiatun waraaxatun lan yuusira saxsan araada an yakuna muusira nee na toog ak loxoy kese moom amul njariñ ab jullit wërta toog benn seconde boo xamante ne nekku ci dara lu koy jariñ ci àdduna wala lu koy jariñ ci alaaxira moo tax buñ masaan sëriñ bi amoon na ñoo xamante ne seen yitte len dong la mooy suba gu jot buñ xëyee danañ jàng ñaari kaamil alxuraan buñ julee tisbaar danañ jàng kaamilub alxuraan buñ julee tàkkusaan danañ jàng kaamilub alxuraan bu ajjuma danañ jàng juróom-ñaari kaamil nga xamante ne loolu suñ mat laamin nee na lam ci jublu booy xool waxtu julli wu nekk day ànd ak kaamilu alxuraan ndax semaine bi juróom-ñaari fan la ajjuma ji juróom-ñaari kaamil la ñuy jàngandoo semaine bi nag bis bu set danañ jàng ñeenti kaamil alxuraan noonu la ko sëriñ bi saxale li jiitu mooy dem gànnaar ba bi bi mu jógee gànnaar ba ñëw ci yeen jolof ba bi mu ñëwee njaareem ba ni mu wujjee sunu boroom ridwaanullah alayhi mësta manqué lool julli itam ngir am am gum solo amal solo waxtu moom sëriñ bi waxtu julli mës mësta sëriñ bi mësta jullee fu ci jàkk moom ci boppam mooy jiite julli gi te bu jullee ba noppi li nga xamante ne mooy li ëpp solo ci dunduk ab jullit mooy xam-xam faaw mu joxe bind bind boo xamante ne dana dana ci xam seen seen li nga xamante ne moom lañ soxla seen mbirum àdduna ak li nga xam ne moom soxla seen mbirum alaxira mu jàngal leen ko wax leen la leen ci suñ boroom digle loola dundal waxtu mënta weesu lolo waaye it boo gisee ñi sëriñ bi yar ñépp ci noonu la leen yare ci fonk waxtu ak dundal ko gis ngeen diirub li mu nekk ci eh, xaybatul baxriya mooy ci géej gi ki nga xamante ne moom la fi bàyyi woon mu wuutu ko ci njaboot gi ak ci tarbiya gi ak ci tajdiid bi mu yeesal diine ji ak jaarale nit ñi fa fi nga xamante ne mooy manhaj bi sëriñ bi bëgg yeesal gi doon yeesal diine muy Cheikh Ibrahima bokk na ci ak fonk waxtoom ñeenti kaamili alxuraan yooyu nga xamante ne sëriñ bi moom la doon saxal bis bu set ñi nekkoon fa moom ak zikkar yañ daan def ak awraad yaak ak la ca ànd ak yëpp moom da caa dolli woon junni salaatan tunajjinaa te xam ngeen ne salaatu ala nabi bokk na ci li ëpp solo ci li ñu war a dundale waxtu ndax yàlla moo wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu dafa am benn saxaaba bu ñu ubay ibnu kaab daa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de damaa bëgg di julli ci yow naka laay jullee ci yow yonent bi ne ko nu mu la soobee rek Ubay ibnu Kaab ne ko kon damay xaaj sama dund ñetti xaaj sulus ba mooy benn xaaj ba lépp dama julli ci yow yonent bi ne ko boo ko defee mu baax de waaye boo dollee it mu gën mu ne ko kon damay xaaj sama dund eh, ñetti xaaj jël ñaari xaaj ya di ko julli ci yow yonent bi ne ko noonu baax na waaye boo dollee it mu gën Ubay ibn Kaab ne ko yow yonente bi yàlla bi kon damay jël sama dund gépp ma jox la ko di di di di di julli yow di def salaatu ala bi yonente bi ne ko loola day soo ko defee soo ko defee sa njàqare isan yokku faa xammuk woo yoxu faru zanbak ne ko loolu de boo ko defee sa njàqare yi àdduna sii mooy stress yi nga xamante ne moom la nit ñi am jaaxle yi ak ak ak ak ak yi ngay dëgg tension yeek yi jaaxal nit ñi daal yépp nee na njàqare yooyu salaatu ala nabi ak julli ci yonent bi moo ko mën a fekk te ay bàkkaar yi nee doo ko am say bàkkaar yëpp dañ la koy jéggal am solo am solo googu tax na Cheikh Ibrahim taalibe yi bokk na ci lim leen gënoon a sas ci gannaaw sëriñ bi bi mu nekkee ci tukkeem bu mag bu tedd boobee mooy ñuy saxal salaatu ala nabi junniy yoon alfu marra salaatan tuna jiinaa googu ngeen gis ci eh, allahuma salli ala sayyidina muhammad salaatan tuna jiinaa biha min jamil ahwaali wal afaat wa taqdi lana biha jamil xaajaat wa tutahiruna biha min jamihi sayiat wa tarfauna biha indak ahla darajat wa tuballighuna biha aqsal gaayaati min jamil xayraati fi lxayaati wa baadal mamaat loolu dañ ko daan def junniy yoon te ba léegi si ñu ngi koy def foofu ca daarul moxoti ci mu nekkoon loo xamante ne du sëriñ bi daan digle la Cheikh Ibrahima daan ko def diirub li sëriñ bi tukki te bi mu ñëwee it mu di ko wéyal ba léegi boo demee Daarul Moxti ay ay pepp ay ay ay ay doom yi doom yu mel ne doom yi déem lañ yor ay doom doom yu xoox buy yoo xamante ne benn salaatu buñ def bu ne dañuy jël teg ne dañuy jël teg ba mu junni yoon saa yu ñu jullee takkusaan ba noppi def ko booleeg ñeenti kaamil yooyu nga xam moo doon ndigalal sëriñ bi booleeg nag xasida yi ñuy jàng waxtu wu nekk nga xam ne loolu day niroog la Ubay nu Kaab waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lu ma lay defal mu ne ko sama sama dund gépp kon dama la koy jox muy julli ci yonent bi ak zikkar mu ne ko kon say sa njàqare yëpp yàlla dana ko teggi te yàlla dana la jégal du am bakkaar kon moo lay xamal ne kon yoonu murit bokk na ci liñ li nga xam moom mooy seen moom lañ leen di moom leen ñëpp ñëpp ñëpp gën a nawe moom leen ñëpp gën a yéeme mooy bari gu ñuy bari tudd suñu borom ak fonk guñ fonk seen waxtu nga xam ne seen wenn waxtu du neen ndax eh, nee na waxtu moom dafa nekk loo xamante ne lu lu lu rëy la ndax boo gisee tubaab yi dañuy wax naan time is money al waqtu min az zahab le temps c'est de l'argent waaye lislaam moom gis na ne temps moo gën a for argent ndax temps mooy mooy nit ci boppam mooy dund ki te benn nafas mooy benn nokki bu jàll bu ne dutoo ko amaan mukk moo tax ku ñu xasanul basri daf daan wax bu jant bi fenkee mu ne la ma koy dama koy yan di ko yan di ko yan di ba jant bi sox ndax xam na ne jant bu sox bu ne ba ba àllaaxira du ñëwaat kon loolu mooy am am solo waxtu moo taxoon sëriñ bi fonkoon ko euh, daan ko dundal euh, ci anam googu ma wax kon nag nañu gën a fonk waxtu gën fonk dundal ko ci luñ man ci fonk yi jaamu yàlla yi muy julli yi te di ko defe ci mbooloo yi ak yit fonk liggéey ndax liggéey yit dafa bokk ci li nga xamante ne moom lañ xamee yoon wi ndax sëriñ bi dafa wax ne wal man bi an anna ilman wa amal huma wasilati saadati ajal kon jaamu yàlla ak liggéey moom mooy ñaari ponk yi nga xamante ne ci lañ mën a gën a dundale waxtu te waxtu mooy dunduk doomu aadama te bu ëllëgee bu taxawee ci suñu boroom moom lañ koy njëkk a laaj te ñaar yooyu lu mu ko ci dundal rek bu ëllëgee dana am dana diis gann ca ca balance ba muy jàng ndax doomu aadama moom wax nañ ne minal mahdi ilal laxd bi mu juddoo ba biñ koy ba biñ koy ba muy faatu bis bu set day jàng bis bu set day dooleeku xam-xam moo tax am na benn borom xam-xam boo wax ne imaam Shaafi yi sax lañ wax ne moom la nee na bu bu bu bu benn bis rombee ci man boo xamante ne dollikuma ci xam-xam dolli ca jëf ju baax xamal ne bis boobee bokk ci sama dund bu ñuy limaale dund nit ki bu dundoon téeméer at it na bi bis ba nga xamante ne bu dolliku ci xam-xam jëfu ca jëf ju baax dolliku ca jëf ju baax bis boobee nee na bokk ci dund gi bu ñuy lim dund gi day pertement lay doon ci moom kon ñu gën a fonkaat bu baax sunu dund gën a góorgóorlu ci jaam yàlla yi gën a góorlu ci liggéey it ndax liggéey mooy li nga xamante ne mooy liy tax am réew jëm kanam waaye moom la ñuy royee ci mag ñu baax ñi ak euh, ak sunu sunu sunu sunu kilifa yu baax yi ñi ngi gën a fàttaliku it bu baax ku tedd ku mag màgg koo xamante ne moom it fonk gum fonk waxtu xam waxtu yi gën a màgg ci lislaam mu seet jàmm yàlla gi gën a rëy ci lislaam ndax yonent bi sallallahu alayhi dañ ko wax ne ko ab jullit ah, kan mooy ab jullit ayil muslimi xayr kan moo gën ci jullit yi mu ne man yaqra'u salaam wa yut'imu taam wa yusalli wa naasu bi wa niyaam wa yusalli bi layli wa naasu niyaam yonent bi biñ ne ko kan moo gën ci jullit ñi mu ne mooy ki nga xamante ne foo ko fekk day wax asalaamualeykum di dox jàmm te di ko def waaye kan moo gën ci jullit yi yow yonent bi sallallahu salaam wasallam mu ne ki nga xamante ne day joxe aw ñam di berndeel jullit ñi di leen jox aw ñam soxna may Maymunatu radwanullahi alayha nekkoon ku ku ràññeeku ci joxe aw ñam seet it guddi mën naa ne guddi yëpp la ko daan def at mi yëpp ala mari sana foo ko mas a gis rek xamal ne joxekatu ñam a ngi nii xamal ne berndekat a ngi nii xamal ne ku ku ku ku ku mën a euh, dugal mbégte ci xolub ak jullit a ngi nii ku mën a def lu baax a ngi nii moom soxna may Maymunatu Mbàkke te yàlla dafa wax ne man amila saalihan min zakarin aw unsa fala nuxyiyannahu xayaatan tayibatan wala najjanum ahsan ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun waaw kon jigéen la joo xamante ne taxaw na taxawaayu ay góor yàlla yu baree bari ci dundal waxtu ndax góor yàlla yi ñoom dañoo jàppoon ne dundal waxtu ñoom maanaam rey waxtu dañ koo jàppewoon ab ñaawteef jàppe ko pertement boo xamante ne kenn mënu koo dabaatal moom nag mu seet fa gën ci dundal waxtu muy waxtu wi gën ci at mi muy guddig laylatu xadara mu mu gën faa dolli nag ay ahmaalu saaliha amaala saaliha muy joxe ñam muy tudd yàlla muy jàng alxuraan muy jokk ak bokk muy dajaloo di fàttalikonte njàngalem sëriñ bi loolu lépp ak yeneen jëf yu baax yoo xamante yu bari la mëneesu koo lim ci benn jataay lépp mu seet guddi gi gën a màgg ci at mi mu tuddee ko mu di ko def ci guddi laylatu xaddar te gis ngeen ne laylatu xaddar moom li ci suñ boroom di def ci ay yiw salaamun hiya hatta matla'il fajr wax nañ ne malaayka yi ak jibril ñëpp dañuy wàcc ci kaw suuf si aw yiw lay doon jëf jooju def it day taxaw taxawaayu jëf junni weer yoolu ku jëf junni junniy weer loolu soxna si kum ca woo yaakaar naa foo mën a nekk ci àdduna bi war ngaa gaaw te xam ne dañ laa bëgg a dimbale rek dañ laa bëgg a dimbale rek bëgg nga dundal waxtu te dundale ko it ci barab bi nga xamante ne fa lañ gën a yaakaare nangu jëf ndax jëf lu mu baax a baax it am na barab yoo xamante ne fa lañ ko gën a yaakaare ci ak nangu te Touba ca la bokk waaw ni nga xamante ne eh, Madina ak Makka dafa nekkoon barab yoo xamante ne lu lu lu lu lu waay jëf bu dee jullee julli gi nga julli ci jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ la koy fulal du bokk ak julli gi nga jullee ci jeneen jàkk naka noonu julli ga nga jullee ci xaramay ni sharifay ni dañ la koy fulal du bokk ak julli ga nga julli ci jeneen jàkk naka noonu it jëf ju baax joo mën a def foo mën a dundale laylatul qadr fu foo ko mën a dundale rek ñëw fii ci Touba ànd ko ak ak sëriñ euh, Mouhamadou Mahfouz ànd ko ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ci ci barab bu tedd bu màgg bii nga xamante ne sëriñ bi dafa ñaan lu fi waay ñaan yàlla na ko suñu borom nangu lu fi waay jaamu yàlla na ko yàlla nangu boo demee ci matlabul fawzayni da nga ko fa fekk kon sëriñ Modou Mahfous mi ngi woo ñépp ci ñu ñëw dundal waxtu dundal laylatul qadr màggal ko ci fii ci tuubaa fii ci barab bi nga xamante ne moom la soxna si waqfu lillahi tabaaraka wa taala ci asalam te dara taxu ko koo ay sëtam moomuñu ko ay doomam moomuñu ko waaye laylatul qadr moo ko moom kon képp koo xamante ne da ngay def zikrullah wala ngay jàng xasida wala ngay jàng alxuraan wala ngay jàng xam-xam wala ngay dundal laylat ak noo ko mën a dundale ci xeeti jàmm yàlla yi wala ngay joxe ñam wala loo man di def ak foo mën a nekk ci àdduna bi te bokk ci njabootug sëriñ bi wala nga bokk ci njabootug lislaam war ngaa bàyyi xel na am na barab boo xamante ne ka ko def la ko tax def du dara lu may guddi googu rek aw askanam tax ñu koo def ay sëtam tax ñu koo def waaye laylatul xadar la ko defal kon na ko ñëpp bàyyi xel ah, ñi ngi fàttali sunu bopp di ko fàttali ñëpp rek ñu gën a dundal guddi gi te ñëw wuyu si woote sëriñ bi fii ci Touba ànd ko ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ànd ko ak Cheikh Mouhamadul Mahfouz fii ci tuubaa Asalaam ak tuubaa Touba fële ci kër Soxna May ga nga xam ne moo dend ak jumaa ji fu waay mën a nekk rek nga bàyyi xel Soxna May bàyyi xel loolu mu la woo te it yàll na yàlla fulal ñu lépp ndax guddi la goo xamante noonu ma ko waxee rek jëf yëpp dañ ko ci ful te euh, yonent bi sala salaam nee na man qaama laylatal qadr imaanan wa ihtisaaban xufira lahu ma taqaddama min bi képp koo xamante ne taxaw nga guddi googu màggal ko ba guddi ga jeex dañ lay jéggal say bàkkaar yëpp te loola dara mënu koo gën a rëy ci ab jullit kon yàlla na ko yàlla yàlla yàlla defal tawfiq jooju ñu ngi jox Cheikh Mamadou Mourtada mu àggale jataay bi ñu ngi baalaq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah macha allah sëriñ Abdul Quddus Mbakke jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax. ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne eh, dikk nga ceeg bokki taalibe dikk ceeg bokki jullit yëpp waxtaan bi nag moom tabaarakallaahu eh, am na solo am solo goo xam ne deesu ci yokk dara deesu ci commentaire dara lu dul rek eh, fàttali ne ci njëlbeen gi macha allah dikk nga ci solos waxtu ci ni ko lislaam gisee dikk dikk ci alquranul karim wax ne waxtu yu julli yi sax ak wax jaamu yàlla yëpp ñu ciy def suñu borom da ko tënk ci waxtu dikk nga itam ci yonent bi alayhi salaam wasalaam ni mu fonke woon waxtu ba wax ne ñaari xéewal ngi yoo xam ne jullit ñu baree bari dañ ci waru te mooy waxtu ñu wax temps ak santé muy wér yaram naka noonu itam dikk nga ci Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wax ni mu fonke woon waxtu ba wax ne sëriñ bi nee na murit bi dafa war a nekk doomi jamonoom nga xam ne warta sànq dara ci waxtoom wax ne warta toog ak loxoy neen yaatal nga ko ci yaatal woo xam ne macha allah mëneesu koo euh, mëneesu cee yokk dara naka noonu tam dikk nga ci sëriñ bi ni mu daan yare mag ñi ci ñuy fonk waxtu ba joxe ci misaal ci alxaaji sëriñ Mbàkke Buso ci euh, taxawaay bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam liggéeyal ko sëriñ Tuubaa ci waxtu ci calendrier yooyu nga xam ne daana ko liggéey ngir ñu ci xamee waxtu julli ak waxtu koor yi dikk nga ci leeral ci lu yaato yaat loo xam ne mëne su cee yokk dara wax nga itam ci sëriñ bi ni mu daan wattandiku wattandikuloo murid yi ak jullit ñëpp ci ñuy sànq seen waxtu di toog ak loxoy neen nga xam ne dikk nga ci misaal wane ne moom sëriñ bi ni mu daan dundee taalibe yi kenn ku nekk rek am na liggéey bu la joxoon féete la ko ngir ngay bañ di sànq sa waxtu ba joxe ci misaal ci kamil alxuraan yi nga xam ne moom leen daan sant ñu di ko jàng ba ginnaaw bi nga xamee dem na ci géej gi itam bàyyee maam Cerno borom daaru euh, liggéey bi moom itam mu wéyal loola ci di leen ci tàggat ba sax moom yokk ca lu ama am solo muy julli ci yonente bi nga xam ne indi nga ko wax ne maam Cerno yokk na ko ci ngir murid di ko ci di ko def ngir rek di mën a bañ a sànq seen waxtu naka noonu tam dikk nga ci soxna si ci njël ci mujj gi wax itam moom ni mu fonkee woon waxtu ak xam ngim xam mm, lu mel ne laylatul qadr nga xam ne waxtu la woo xam ne lees lees ci jëf rek des koy ful ful goo xam ne jéggi na dayo soxna si teel xam loolu ba tax mu fonk ko loolu tam dikk nga ci leeral ko leeral goo xam ne moom dara mëneesu koo ko gën a leer kon ñu ngi lay sant bu baax a baax sëriñ bi ci taxawaay bu am solo bi ñu ngi lay sant bu baax itam di wax ne wax dëgg yàlla waxtaan wi am nañ ci satisfaction bu baax xol sedd na ci wax dëgg yàlla xam-xam bu bare bari génn na ci ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom yokk laa kàttanal ba yéene ji nga am ci liggéeyal ko lislaam jaare ko ci sa kër maam maam na borom daaru waaye jaare ko ci sa kër maam Cheikhul Khadim waaye nag lépp nga def ko ngir liggéeyale ko lislaam ñu ngi lay ñaanal suñu borom kàttanal la ba li nga ci bëgg nga def ci lu kawe sa njort kon ñi ngi sant mbokk yi bu baax di leen gërëm di fàttali rek ne incha allah rabbi waxtaan yi day wéy di continuer war nañoo amaat beneen thème boo xam ne ñu ngi koy amalee fee ci kër Soxna May ci jumaa ji sëriñ Cheikh Awa Balla di ko def muy Cheikh Sidil Moxtar moom sëriñ Mahamadul Mahfouz muy waxtaane ci koor ak ay jeexitam ci wàllu ruux maanaam njëriñ yi nekk ci woor kon suba incha allah rabbi ci waxtu wi rek 23h ñu ngi sakkuwaat ci mbokk yëpp rek ñu teewlu ko bàyyi ko xel ndax mi ngi jàll ci site yëpp bu ko defee ñu euh, teewlu ko des na ci jëriñu bu baax a baax kon ñi ngi sant comité d'organisation bi buñ ci jiitalee buñ ci tuddee Serigne Cheikh Abdoul Ahad ci biir kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp in uridu illa al islaah mastataat wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mooy bis bi nga xam ne ni sunu borom ci boppam moon wax dayoo bis bi ak daraje bis bi sunu borom nee na bis bi mooy bis bi nga xam ni moo gën junniy weer maanaa jaamu yàlla gu ci waay def dana wotti jaamu yàlla junniy weer di juróom-ñett fukki ak ñett ak ñeenti weer kon loolu xéewal la goo xam ne sunu borom moo na ko jagleel ni ko Cheikhul Khadim waxe yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne képp ku màggal guddi gi laylatul xadar te teg ko ci ngëm ak rafetal nee na sunu borom dana jégal bépp bàkkaar boo xam ne amoon nga ko. Eh, sunu sëriñ it di di sunu yaakaar te ëllëg Cheikhul Khadim moom mboolem xéewal yi mu ñaan ñaanal ko njaboot gi ñaanal ko bokki jullit yi ci bi ci guddi gi la ko ñaan nu fas ko yéene def nag ni nu ko sunu kilifa ga bu baax ga daan jëfe lépp it mu teg ko ci jàng njàngum alxuraanul di ko def addi Cheikhul ak di berndeel di bégal ña koy jàng ak dajale fi bokki taalibe yi bokki jullit yi ci di leen berndeel lépp it mu weer ko ci ndigal ci kilifa gi xam ngeen ne at mi mu ko njëkkee def eh, ren jii mooy juróom-ñaar fukkeelu at ak juróom ba mu ko njëkkee def it ba mu xamee dayo weer bi xam dayo bis bi fas yéene liggéeyal Cheikhul Khadim dafa dem ba dafa demoon ba kii fi nekkal Sëriñ Tuubaa di ak Cheikh Mamadou Fadil Mbacke ñaan ko ci ndigal mu jox ko ci ndigal noonu la ko wéyale ba bi mu ni làqu yàlla def na it mus musta bëgg mukk gannaawam ñu wutal ko beneen bis wala geneen màggal saxalal ko bis bii mu tànn noon bis bi gën ci bisi di ci la liggéeyal Seexul Xadim noonu it lanu ko baaxoo defee man ak sama mag ja di soxna maam Bousso Bali Mbacké di yërb lim fi nekk nu ànd ko def bi mu làqoo it ma ànd ko fi nekk noonu ñëpp nu fas yéene di wéyal loola ba ban leen di fekke kon nag maa ngi koy yëgal nekku ko Cheikh Abdou waxe noo ngi koy yëgal bokk yi sunu bokk bokk yëpp ndax ni ma ko baaxee waxe bis bi bisub njabootu sëñ Tuubaa gépp la Eh, ñoom ñëpp xa gis na nañu cër yu yu mag yi ñu joxoon soxna Maimouna Mbacké diiru bu ñu fi nekk def ko wajur def ko sëriñ di ko liggéeyal ànd ak moom ci bis bi kon nag ñoom nañu xam ne mboolem ku njabootu Seexul Xadim bis bi sa bisu bopp la xëy na danoo dañ fay nekk nekkal leen fii rek di wéy seen i digal waaye bis bi appelé appelé wu leen ci lenn di ko yëgal mboolem njabootu eh, Mamour Anta bi di ko yëgal mboolem it seex yeeg bokki taalibe yëpp. ak bokki jullit yëpp di yeesalit sunuy cant ak gërëm bu baax ci jàmbaari sëñ Tuubaa ji nga xam ni naka jekk moo daan ànd ak soxna si ci liggéey bi di njabootu sëriñ Bachirou Sarr rahmatullah alayhi bi nga xamante ne soxna si tàmbali na liggéey bi te tàmbale ko ci yaari ganaar gis ngeen pas-pas ba ci sëñ Bachirou Sarr am diirub li muy li li mu fi nekk naka noonu bi yàlla defee ci moom la ko soobit noonu la ko njaboot di ko di ko wéyale di ko def ba ci sëriñ Moustapha Sarr mii nga xam ne moo fi nekk di jëwriñam te amul lu may wéyalal bëgg amul genn bëgg-bëgg bu dul wéyalal sëriñ Bachir Sarr bis bi kon nag ñoom it noo ñoom noo bokk bis bi eh, seen bisu bopp la seen bis bi seen bisu bopp la ñëw na noo ngi leen koy fàttali bu baax di sant ci li weesu di di ñaan yàlla nu yàkko ànd rek ci barke Seexul Xadim te daje ca ngërëmul sëñ Tuubaa di soññe nag bokki daaray kaamil yi nga xam ni kenn ku ci ne jot na sama ndaw ak sama bataaxel ak suñuy barkeelu di leen soññi ci lépp lu daan daan lépp bépp lim bu ñu ci daan jàng rek ñu dolli ko mu ànd ko sell rek ñaan suñu borom lépp mu def ko ci eh, barke Cheikhul Khadim ñu ngi sant ñëpp.